Bienvenue sur Salam Vision. salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di gërëm leen les programmes de Salam Vision une télévision au cœur du développement mooy slogan télévision euh, tey kaddu askan bi ni dalal fii un représentant d'Assane Diouf kan mooy Assane Diouf mooy doomu Sénégal boobu nekkoon États-Unis euh, nekk euh, nekkoon sur les réseaux sociaux doon sensibiliser Sénégalais sur les réalités du pays Assane bi boobu ak Clédor ak Clédor Sène euh, ak euh, Guy Marius Sagna ñi ngi si biir prison bi dañu waxoon ne dañu libéré loolu moo doon li gën a rafet te Sénégal dëkku jàmm la ginnaaw bu ñu bàyyee Ousmane Sonko euh, teg loxoon teewoon jox ay loxo ay jigéenu Pastef mbir mi nag mi gën di jéggi dayoo tey représentant Assane Diouf lañ fa teewal wax ñu lan moo tax ba léegi ñu téye Assane yan tuuma ko teg euh, sëñ bi asalaamaaleykum yaa ngi si euh, teewaayu Kër euh, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa di nuyu waa Salam Vision et di leen remercier parce que man presque li ci ëpp bu ma amee lu may wax presque fii laay ñëw n'empêche am na yeneen sites yu kii mais kii dafa fekk ñu bokk fi ñu nekk bokk gis-gis aussi xam nga. voilà euh, di masaw aussi euh, xale yi nga xamante ni ñoo daanu ci mbir mi xam nga onze personnes yi di leen euh, ñaanal sunu borom. Mm-hmm. fa ñu jëm dàqal leen fi ñu jóge mm-hmm. waaw bu ma paree di ñëw ci jàpp Assane Assane liñ mm-hmm. koy tuumaal mooy dañ ni ay audio yoo xamante ni dafa jaar ci entre moom Clédor et puis Guy Marius Sagna xam nga. te euh, yaakaar naa que ni audio yooyu Assane man mii rek. du ñu du ñu du ñu du ñu ci ay audio xam nga parce que ay audio moom du mbiram. parce que nekk na nit koo xamante ni aussi prudent ci lépp lu muy def. Mm-hmm. voilà te du doxee noonu sax moom du fon du fonctionné noonu ay. complot ay non non. Mm. moom li muy def dafa am ay principe am yoo xamante ni da koy défendre moom bu bëggee def dara du question que. Mm. nit moo koy def loo. Mm. parce que man mi ma fekk Ziguin Ziguinchor Wélingara Wélingara la ma fekk. mais biñ ma nee Assane dañ ko dañ ñu ngi di ñëw di ko téye si xam nga. après biñ ma nee jël nañ ko ba yóbbu ko bi ma laajtee lan la ñu ne ma non dañu ni ay audio la ma ne non dama ko dégg rek ni non melewul ci lool. parce que du kuy paasante ay ay xam nga du kuy def benn affaire di ko def ci ay audio moom li muy wax ci kanamu caméra bu wanee ginnaaw aussi loolu lay wax xam nga moom du du maanaam du du comploter du comploter li mu bëgg a def da koy def bu ko ci tëj dee fekk wala lépp lu ko ciy fekk mu fekk ko ci xam nga euh, de toute façon euh, jàpp bi moom jàpp la boo xamante ne rek peut-être que dafa am yu ñu doon joortu xam nga ñëw jàpp ko pour rien. dañ hmm. ko jàpp pour dara mais Assane euh, deful dara et euh, il n'a rien à voir ak hmm. affaire yooyu daal franchement euh, ñu bàyyi ko xam nga. ñibbi kër bàyyi voilà mu ñibbi këram moom ñoom Guy Marius Sagna et puis ak ñoom Clédor et puis ak waa Pastef yooyu ñu jàpp ci affaire yooyu xam nga. Hmm. comme les gars wax rek xam nga. def ci glace xam nga li ma wax mu seetlu quoi xam nga moo gën am na yoo xamante ni day yokk ay. day yokk ay quoi. Mm-hmm. parce que ay aussi boo koy fay. Mm-hmm. da ngay xool li nga xamante ni si lii boo ko defee ak lii ak lii dina fay ay woowu nga def ko mais dafa am certains actes yoo xamante ni bu posé woo rek dañ naan lii day yokk ay xam nga moom tey li mu doon li mu doon bañ. Mm-hmm. bu nekkee fee moom lay bañ boo ko génne moom lay bañ moom demul woon tey jii rek waxul woon préparé woon loo xamante ni. pour que Sonko la wala pour keneen non dafa ni injustice mm-hmm. boo ko dégloo asan nga dégg yu bëri mu am nu mu ci waxee Sonko yoo xamante ni partisan Sonko yi neexu leen mm-hmm. comprendre nga wax mu tourné waat ñëwaat ba jour boobu bi muy dem kër Sonko et bi ñu ko ciy gaañ parce que injustice boobu la doon la doon bañ mm-hmm. xam nga et puis euh, démocratie aussi xeex démocratie pour que mu sax fii xam nga loolu moo ko yóbbu woon mais du du koy préparer ay mbir daal ñu bàyyi noo gisee la descente inopinée des forces de l'ordre keroog ñuy euh, euh, teg Assane Diouf loxo ñëpp a ñaawlu ñëw dajji këram jaay ko doole pamti pamti ko yóbbu ko est-ce yaakaar ne tey euh, démocratie bi ñuy woote droit la bi woote Sénégal mi ngi existé. non jël si bi xam nga c'est la deuxième fois ñëwoon naa fi. bu mel noonu. non c'est pas la deuxième fois c'est la troisième fois. Mm-hmm. mais li ma mën a wax rek mooy. tay bee passé. Hmm. ñu ñëw jël see ko noonu. jaay ko doole ok jaay ko doole bii ñu ñëwaat jaay ko doole jël see ko noonu man je me demande xaw ma loolu loolu laa comprendre. Hmm. pour lan la. Hmm. man je pas pour ma spectacle xaw ma euh, bu fekkoon que ni. Euh, Baye Fall filmé wu ko bu fekkoon que ni loolu kon wala dafa bëri ñoo xam ne yàgg nañu leen def noonu man je ne comprends pas parce que euh, dara dàqul ki nga xamante ni tey parce que ba mu nekkee ci biir. néeg bi bi mu tijjul gars yi bi mu woowee maître clé euh, maître clé d'or sur clé d'or daf ko ni euh, wax leen ñu bàyyi la fa kii euh, suba nga dem wuyu si leen. Mm-hmm. comme heure bii fi mu toll xam nga li ma la suba nga dem wuyu si leen. Mm-hmm. mais boo ko joxoon suba day xëy dem wuyu si mm-hmm. la loolu comprendre nga j'espère que aussi même même même clé d'or pareil keneen noonu keneen noonu mais kon dafa am yoo xam ne gis nga yëngu-yëngu bi yëpp. xeetu affaire yooyu moo ko waral te yooyu ça n'a pas de sens. amu woon amu woon amu woon euh, solo. Mm-hmm. yow lii mën nga ko defee nii mën nga woo nit ki mu ñëw wuy si la mais defal point bi gën a facile. Mm-hmm. mais am réew kenn du leen xoj ba ñu sës. kenn du leen ba ñu fës. Mm-hmm. mais ñu ngi koy ñaawlu ñaaw na trop trop aussi. Mm-hmm. xam nga ñaaw na trop ci yenn façon jël si même ci kudul moom sax mm-hmm. nañ xoolaat daal yooyu quoi di jël si nit ñi di leen jox seen àq ak seen yelleef réew nag yooyu pour que nga mën ko am aussi il fallait que mu nekk réew moo xamante ni. justice bu indépendant mooy mën a dawal yooyu xam nga li ma la. mais certains affaires yoo xamante ni yooyu am fii ci justice bi. tout simplement. pour faire plaisir président. te li ngay bëgg a defloo plaisir président di ko bëgg a bégloo yow yaa ngi lor président. parce que yooyu yëpp ay acte la yoo xamante ni kii bu tuddee président naa ko jël tëj ko. jël ko jëlin wu ñaaw. président da ci ko non président même bu ci kontaanee yow yaa ngi indil président elle. nit ñi chaque jour de fur et à mesure nit ñi di bàyyi ci président di ci camp président bi. di mer xam nga mer boobu nag bu yàggee muy jur comme lii mu gis nañu daal euh, jamono ji arrestation yi bare nañu ay jigéen yoo xam ni doon yëngu Pastef ñoom di Mari Sagna si la bokk ñeneen ñeneen ñeneen partout à l'intérieur du Sénégal nit ñaa ngi koy condamné arrestation arbitraire yooyu am te benn euh, kilifa bu mag bu ma wax turam actuellement nga ñu ne président de la République menacé ko euh, les réseaux sociaux droits Euh, dëkk bi doy na waar euh, représentant Assane Diouf noo jàngatee mbir mi. waaw euh, le problème mooy gis nga dëkk bi doy waar bi yëpp ci ñoom la. Mm-hmm. ñi ñu jiite xam ñu jiite. ci ñoom la parce que dëkk boo ci nekkee li gën a graaw ci dëkk mooy dama ko waxaat rek dëkk bu amul justice. li sëñ Cheikh di wax naan dëkk boo xamul justice dëkk fa sax musiba la xool parce que boo xoolee lépp lépp lépp ensemble lépp lépp lépp ñàkk justice la mhm. parce que ci ñàkk justice ci la ki amul di ñàkk a sentiré boppam que ni ci lay sentiré que man bokkuma ci réew mi mhm. ci la ku am doole di néewal doole ku amul doole xam nga ainsi de suite ainsi de suite lépp mu ngi tënku ci justice mhm. te gis nga man bu ma doon bu ma doon président. Hmm. am na certaines têtes yoo xamante ni wax dëgg yàlla man soxlawuma leen. man hmm. soxlawuma leen parce que dafa am ñoo xamante ni. yàq ok. Hmm. dañuy yàq. te seen yàq boobu mooy comme li ma la wax sànq. et di jël président. Mhm. di ko wax dëgg aussi. si si duñ ko wax dëgg parce que pour ñoom. Mhm. ku ko ci wax dëgg rek da ngay ñàkk sa poste. tu imagines mhm. conseil con euh, ministre conseiller. ñaata lañ. bari na ñi ngi ci biir banlieue. amuñ benn njëriñ ñi ngi ci biir banlieue président di leen fay. amuñ fi benn njëriñ. mais ñooñu gisoon nañ que ne. Ah. jeunes yi amuñu liggéey. ñooñu ku ci yeewu sa buntu kër ministre conseil ku ci yeewu sa buntu kër ñi nekk ci banlieue bi. yaa ngi tourné gis booy toog seen toog di naan ataaya ñuy jàng ba pare. parce que ñëpp ñu koy ñu koy gis. ba ci maire yi ñoom ñëpp ñu koy gis. mais kenn du ko ci wax dara. Mm-hmm. nga ñëw lii rek da lay wan président am na ci certaines personnes yoo xamante ne amul luñ ko njëriñ. Mm-hmm. Euh, le fait que mm-hmm. lii am bi mu amee. mais ñenn ñi ñëw. ni euh, soi-disant ñu ñuy wax naan ñu ñooy suñuy ay euh, ministre de l'intérieur ak tel tel ñëw di wax yenn kàddu yi pour man. même ba ci ba ci Idrissa Seck. Mm-hmm. am na ci man kàddu yoo xamante ne boo ko waxee pour man yow. da bëgg a enfoncer président. surtout kilifa. waaw surtout ko kilifa. da bëgg enfoncer président yi. parce que mm-hmm. dafa am loo xamante ni tey boo ko bëggee wax nga ne. ñi génnoon. Hmm. nga di leen catégoriser ci ay mbër. Hmm. wala nga di leen catégoriser fii wala fee ñoo ñoo gën a xam ni que ni jeunesse bi moo génnoon. Hmm. te di leen war a gën a yéem mooy lan mooy ay xale treize ans. kan moo génn xale yooyu ñoom du ñu du ñu du ñu du sax du ñu introduire bopp ni xale yi lan moo tax ñu fippu. du ñun ñoo leen koy wax. du Sonko man j'étais là-bas. Mm. mais Sonko yóbbuwuma. Mm. man Sonko yóbbuwuma man damay damay que. cause nationale mm. ok ma yóbbu. ba ngay gis ay xale yu ndaw daf ci am ak xam ne xool dama taxaw fii euh, sama buntu place bi policier yi egg benn xale bu ndaw est-ce que bu amee ay douze ans ci lay toll di toj xeer yi di ko partager am leen am leen gars di sànni dama affaire bi image dafa dafa ma. Euh, étonné ba nga xamante ni au moins sax temps pour filmer xale bi xool ndax li muy def di tojal yeneen ñi xeer di leen sànni boo police yi ñu ngi arrière boo yi di leen topp mais loolu yëpp ñoom mënuñ ci mënuñ ci am jàngat jàng ni ñii lan moo leen génne mm. man bu ma doon bu fekkoon man maa nekk ci place président bi ku taxaw nii mbër moo génn dàq naa la mm. parce que da nga may réeral ti c'est très bien que ni ñun kañ lañ am nombre mbër bu toll noonu xanaa kon Sénégal yëpp ay mbër lañ. ah mm-hmm. kan am ay nga ne ñii ñëpp ay bandi lañ. non type de Sénégal yëpp. nekkuñ ci lamb quand même. ah, ah ci lamb xam nga mm-hmm. kooku tey boo ko waxee. Mm-hmm. yaa ngi def yow euh, naxu kenn sa bopp ngay nax sax yow sa bopp ngay nax. xam nga mais heureusement que président aussi. Euh, loo ko mën di waxal aussi. Hmm. comme moom reconnaître na que ni. Hmm, bi ñoo génn. Hmm. moom am def na erreur amul kenn ku nekk ci moom amatoo droit yow. si de la République. si si si si si déclaration bi moom. bon non <laughs> man président man boo deseet man defe sax man ci ñi nga xamante ni même bu defoon lu baax sax man baaxul ci baaxul ci laa bokk man man boo deseet quoi xam nga li ma la mais bu taxawee ni. Euh, nan point boobu rek laay wax hmm. ci point bi le fait mu nangu ko ni hmm. jeunes yi la hmm. euh, d'accord naa que ni jeunes yi lee rek ñoom seen camp laa wax kenn amatul droit expliquer ci seen camp que lii la mbër la wala lii la wala lii la kenn amul droit euh, ci gaaw a teel a waxam wax même ñee waruñ ko woon waxal. Mm-hmm. parce que seen wax boobu moo aggravé mbir yi. Mm-hmm. wala sax quand nga jël koo xamante ni commune bi day communiqué bu baax. mais ay communication yoo xam ne xoqatal leen ni ñu dee ba pare nan nga leen di rayee gars yi amuñu amuñu xoolal lu ñuy tiit. Mm-hmm. comprendre nga wax amuñu lu ñuy tiit man moom de toute façon li may wax rek euh, dafa am xeex boo xamante ni boo koy xeex du pour man sax. mais pour samay doom. Mm-hmm. te mën naa cee joxe sama bakkan. Mm-hmm. loolu du dara. Mm-hmm. xam nga li ma la wax nit pour ko dafa am loo xamante ne tey ñu jiitu ak suñu sëriñ seeg ñooñu. bu fekkoon que dañoo ñëw xam nga joxewuñ ci seen bakkan ci xeex bi ñu fi xeex tey wala ñu ciy xool que du du du ñu ciy xool que ni pour ñoom kase kase la kon boobaa dañu doon toog fa ñu toog. du ñu génn fa ñu toog mais dañoo génn Sénégal bi sacrifié wu. pour seen peuple pour seen askan pour futur boo xamante ne pour que ñun tey jii lii ñu am ni est-ce qu'on comprend nga wax ñu mun ko am te résistance boobu moo gënoon metti parce que ñoo colon yi la woon amul woon ay droit de l'homme droit de nangam sangam ndagam suñu maam yooyu ñoo ko mën sàkkamtumaan hmm. ñun sàkkamtumaan ñun ah. gis nañ daal coor yi bari na si réew mi hmm. euh, takk-der far nañu ay doomu aadama metti na fépp ñu ngi koy ñaawlu sur le plan international Euh, dañ yàgg wax ni Sénégal royukaay la en démocratie ak dëkku jàmm euh, am na beneen sortie ku naan euh, benn animateur d'une télévision ñëpp xam nañ ko nekk RFM génne na benn baat di ŋàññi Assane Diouf jar may wax turuwaa ji tey noo gisee tey li tubaab na les bavures policières ci si kaw askan bi buntu xatal askan bi Sénégal kenn musu gis Euh, manifestation mel noonu en tant que représentant représentant Assane Diouf mhm. euh, mbir mi day gën di jéggi euh, kilifa diine yi wax nañu ñu jéem a waxtaan ak ndaw yi gis nañu fan yii passé am na émissaire demoon seeti xalifa général des des Tidiane des Mourides un peu partout te lan mooy si jàngat si mbir moomu. waaw mbir moomu avant tout li ma ci njëkk a wax rek mooy di gërëm sunu xalif yi. muy bu Tiwaawan muy bu Touba Kaolack euh, laayeen xam nga di leen euh, gërëm xam nga di leen euh, sant bu wér a wér parce que aussi ñoom tay jii bu ñu fi nekkul woon kon heure bi kenn waxatu ko. Hmm. parce que du ñu woon nangu dañ dul woon nangu que ni Sonko génn. Hmm. ñu arrêté mbir mi xam nga Karim jour bi fa nekkee Karim Prompart dafa ma ni sa waay mais ah, mu ñu daal du ñu buuse. tànk yi ci des génn ñu. Hmm. xam nga bu yeboo ñu enchaîné ko ba ba ba fanaan fi sax. Hmm. mais gars yi dinañ libéré ñi ci des parce que xeexuñu woon kase pour que. Hmm. Sonko kase génn. mais ñeneen prisonniers politiques yi ñoom kii ak ñooñu ñëpp ak ñoom Assane Diouf ñëpp dañ leen war a génne. xam nga kon du ñu buuse fii. xam nga bavure policier il faut mu am bavure parce que le problème mooy booy xeex ak koo xamante ne moom bakkanam bakkanam la joxe addiya. xam nga jeunesse bi keroog. seen bakkan lañ joxe. sans arme. ok sans arme. Mm-hmm. xam nga koo xamante ne tey ful boo xamante ni mm-hmm. calculé sax. Mm-hmm. que ni euh, militaire ak ci kanam wala police. non gis nga. Euh, muus bu gisee nit day daw. mais boo ko tëjee ci biir néeg. mu jéego. dina metti trop ci yow. mooy dañu jël peuple bi. naaj leen naaj leen. gars di la jay naan président bi ko wax mu dëgg ministre euh, comment Euh, euh, comment dirais-je procureur ku wax mu tëj la. Mm-hmm. procureur amul jàpp. c'est que sama affaire yooyu ñu leen doon wax. Mm-hmm. xam nga mm-hmm. nit ñi def seen bopp que ni. askan wi dañoo ragal. même man demoon naa benn temps ba defe que ni Sénégal moom boo waxee ma ne la non ñoom askan wi ñuy nelaw lañu quoi. comprendre nga ko parce que euh, tey bi ñuy def parrainage bi ñu demee man j'étais là mais bi ñu egsee bi ñuy bëgg bi ñuy manifester foofu boo xoolee. même pas trois euh, cent deux cent personnes sax je crois que nekku fa. Hmm. xam nga gars yi encerclé Dakar boo waxee nit ñi ni la loo kenn mënut a dugg gars yi dañ ko encerclé ci la kilifa bu yàlla maar sax doon wax que ni sénégalais yi am terme bu mu utiliser nit ñi mer. Hmm. mais instant boobu buy wax loolu sax du ko tey parce que boobu aussi euh, dafa metti quoi ngay jug xeex benn mbir gisoo sénégalais yi ñu teg ñu taxaw. xam nga day metti mais boobu dafa jotagul woon rek. Hmm. dama koy wax keroog ak euh, Karim ñu taxaw gars yi toog ma ne ko Karim yaa gën a ñëw wéet ci kii bi de ti rappel que jour bi nga wootee bi euh, ministre de la justice Sidiki Kaba demee Israël ci miir ba. Hmm. di fa ñaan. Ah. ñu war koo manifester benn vendredi ma ne ko yaa ngi koy fàttaliku matuñu fa quinze personnes. Hmm. mu ne ma kuy xeex du yàkkamti. je savais que bés bu mel nii dina ma sa am. xam nga gars ñoo nacc askan te euh, bavure boobu euh, faw mu am faw mu am parce que tey jii xale yi ni doon attaqué policiers yi mhm. man dafa am koo xamante dafa toog sax benn instant ni ma gaañ yow mais sëñ bi yow xale yi dañoo drogué wala da lan ma ne ko non xale yi dañoo sës mhm. xam nga dañoo sës mhm. léegi le problème mooy gis nga xam nga lu tax ma ne faw mu am néew ma daa war a am de faw mu am de xam nga ça veut que bu bu bu askan lu mu fippoo police riposté wu ñee dox ci seen bakkan est-ce que nga lu wax. Mhm. faw lu mel noonu dina am. Mhm. dañuy sax sant metti na trop mais mënoon naa dépasser lii. Mhm. léegi nag loolu yëpp xam nga lan lañ waroon wax. la tax mu am. li tax mu am mooy seen communication bu bon. li tax mooy mu am mooy président waroon naa teel a wax. et manque de considération aux populations. loolu moo fi mos a am. Ah, manque de considération. faale population yi manque de considération boobu ça fait neuf ans gars yi di la gëmloo ni yow gars yi mhm. président yi fu mu mos a jaar dañ leen a ñemee. Mhm. da ngay ñëw sax di wax wax benn kii mhm. euh, ba ñu naan la non yow yaa loolu ci président dinañ la jël si de. calculer wuñ sax jël et puis yow ma la. Euh, des ministres irresponsables qui attaquent des populations c'est extrêmement grave dans un pays qu'on dit démocratie. Mhm. c'est grave. non ministre yooyu moom. man euh, damay blâmer président laa ko parce que man dafa am certains ministres yoo xamante ni man du ñu nekk sama rang ministre. man am na certains yoo xamante ni. yàq na benn façon discours bi. boobu sa discours boobu sax yow yaa dàqul sa bopp yow waroo woon mm-hmm. xaar sax président di la dàq. ñun du terroriste. Sénégal ñun du terroriste fii dëkku jàmm la encore une fois de être objectif et sincère devant les Sénégalais, mmh. que c'est pas un pays de terroristes. Okay. C'est un pays de droit et d'égalité. Mmh. On n'a jamais connu le terrorisme. Le terrorisme, bon, partout, ça se sent sur le continent africain. Mais le Sénégal mmh. est une tradition de paix et de stabilité, monsieur le ministre. Mhm. Oui. C'est-à-dire, euh, même terrorisme, Euh, certains aussi wéñi nga ñu wéñi mën a c'est de si si parce que tey nga mënta comprendre mooy fi ma doon wax sax am na fu ma laajoon foofu ma fàtte ko parce que kooku doy baam la. Euh, bëggoon tudd turam ah. mais moom la. Mm. parce que moom lañ fi wax euh, un moo toog naan ñi fekkoon yéen ñi nga xamante ni yéen a doon seetaan Assane Diouf muy saaga saaga ba pare yéen ngeen bëgg a ñëw fii naan nañ ko génne mooy ci jënd bee passé quoi yéen da ngeen waroon wax. bàyyi saaga yi man nii di victimiser wu naan man nii sama yaay daa jóge màkka ma taxaw ci aéroport bi ñu ne ma Assane Diouf mi ngi lay saaga et puis tamit man dama xam man musuma xamante moom ah même Youssou Ndour da sa saaga hmm. point boobu la waroon taxaw moom le fait que Baye Fall saaga Youssou Ndour Assane moom loolu mooy problème hmm. kon problème rek la waroon def wax tout droit hmm. ni lii mooy sama problème léegi problème boobu moom yoonam nekku ci Baye Fall ba muy xamul teg ji suulu ak ba ñuy demlante ba ñuy jàppante moom xamu foo xamu ko woon néew fa woon nañ bàyyi bu ñu nekkee ci télé rek mm-hmm. Mm-hmm. ki leen jiital mm-hmm. jàllal leen ñu ñaawoo àdduna si yëpp wala ñuy xas beneen télé wala ñu koy ŋàññee est-ce moom li mu war a demander xam nga instant bi mooy lan te moom bu waxee Assane Diouf man duma du waxal Assane parce que ah. ah, jam na ko mën a fay moom loolu wóor na ko xam nga bu toogee naan moom Assane mu naan kooku li muy def yëfi mboqat la bu ñemee day ñëw ba fii di saaga mu ñëw mu gis lu pire que loolu mu gis lu raw la mu doon wax Amérique ñu koy wax Sénégal. ah moom aussi <laughs> yu bare bare <laughs> yu bare bare euh, yu bare bare moom dama koy jox tuuti rek mais <laughs> ndayu mbind gi dina àggale boppam li ci des moom xam mu waroon demandé. Mm. Euh, loolu sax ñoom ñëpp laa koy wax xam nga lu ñu waroon demandé. Mm. pourquoi TFM. Mm. ñoom pourquoi. télé bi lañ waroon laaj. 23 juin ñoom ñu ngi fi woon. Mhm. di ñu jox lépp. di ñu jox lépp léegi pourquoi bu ñu ñëwee ci lii. Mhm. mu mel ni dara xewul ci dëkk bi pour man. sénéra ñooñu sax la waroon tëj pour man mm-hmm. ñi nga xamante ni tey am na lu xew ci réew mi te ñooñu wane wuñ li xew ci réew mi pour man loolu lañ war a condamner mais pas li nga xamante ni tay yi ki nga xamante ni daa wane li xew ci réew mi mm-hmm. inventé wu ko cest à ak inventé wuñ ko créé wuñ ay affaires yoo xamante ni amul mm-hmm. léegi kon ñoom tey dañoo war a demander lan moo waral attaque bi ñoom loolu lañu war a demander lan moo waral attaque bi tey que boo nee man ànduma kii ok àndu mais ci sa benn plateau dañuy gis benn waay boo xamante ni àndal. Mm-hmm. mais léegi lan moo tax plateau boobu doo fa teg benn APR teg fa benn toog nga teg fa benn APR nga teg fa benn PDS teg fa benn Pastef teg fa benn lii. Mm-hmm. est-ce que comprendre nga bu ñu bu ñuy nax suñu bopp ku ku far xam nga ni da ngaa far. yow la nga yow la mm-hmm. ñëw ci côté askan wi. moo gën. ñuy dem ci côté nguur gi. Mhm. nguur gi trois ans yi leen dese matatut sax xam nga di leen ñaanal man tey xam nga ci ñaan laa bokk. Mhm. ñii ñaan nguur gi àggali seen trois ans yu mat. si jàmm ak sax trois ans yi bu ñu ci naree teg ñaari benn fan. man moom joxe naa sama man pour samay doom. man joxe naa ko pour samay doom. Mhm. xam nga kon euh, ku ci ne rek mbir mi parce que bu xeex amee. bu xeex amee. pour xeex pour démocratie pour xeex pour. Euh, liberté mhm. xam nga pour xeex pour liberté d' expression. très bien est ce que comprendre nga mooy réew sax. voilà mhm. loolu boo ko dee xeex ci réew. Mhm. bépp télé. bu bëgg réew mi. da nga cee war a jàpp bépp site bu bëgg réew mi da cee war a jàpp bépp rajo bu bëgg réew mi. dañ cee war a jàpp parce que xeexu que lu mu la. gis nga xale yi ngay gis nii sonn sonn. moo leen génnee. Hmm. nit ñi dañ xool waa Confesdire dañuy sonn man xam nga ñan laa gën a yërëm sax man hmm. élèves yi jàngkat jàng ba pare. jàngal toog ci koñ yi di mm-hmm. mener pour maçon mm-hmm. ñii di def boo tal le loolu yëpp di am nos chefs d'État ak nos dirigeants ñu ngi jël xaalis. Ah, ñu ngi noos mm-hmm. ay milliards yi milliards. ñu ngi noos ñu ngi noos ñu ngi noosee xam nga loolu aussi. pare fàtte nit ñi. fàtte man euh, président moom. na dàq ministre conseiller yeeg yenn kii yi. amul luñ ko benn ak yi ñuy wax ay ay ay ay te mu aussi doo ko mën Euh, beaucoup de Sénégalais dañu war le poste de premier ministre c'est important aussi. si si décharger ko. yéen ñii coono la quand même. tu n'es même pas au courant l'espace à l'intérieur de ton pays c'est grave. tax premier ministre am solo. loolu tax mu am solo parce que ñii moom. Euh, liggéey seen seen dara mm-hmm. président il n'a rien à perdre fi mu toll nii pour dàq ñenn ñi. Mm-hmm. amul luñ ko benn te bu fekkee daf ci am ñoo xamante ni moom surtout surtout euh, transhumé yi. Mm-hmm. surtout que transhumé yi. transhumé yi moom man koo ma lan lañ ko war a jëriñ. lan man laay demandé mm-hmm. lan benn Idrissa Seck lan lay jëriñ président. dara amul lu mu koy jëriñ. na mm-hmm. àggale li na àggale lii ko desee. moom kase. jaww ji ñëpp yàggatul li ci des te mu jéem koo rafetal. lii mu commencé ci ay chantier yenn affaire yi nii mu àggale ko mu naaj mu génn ci porte bu mag bi. loolu rek moo ci nekk. Mm-hmm. ne lii moom ku ko gis xam ne. Mm-hmm. troisième sax ay waxam moom kenn waxatu ko troisième moom kenn waxatu ko parce que lii lancement la rek kon troisième kenn waxatu ko waaw. bi ñoo ko déggandoo tur bi naka la ko. Dame Ndao. Dame Ndao Dame Ndao. membre fondateur dernier mot à tous les téléspectateurs de Salam Vision balaa ñu tàggatoo. Mm-hmm. waaw sama dernier mot mooy euh, nañu libéré. Assane Diouf. Hmm. libéré Guy Sagna ak euh, Clédor. tous les prisonniers politiques tous les waaw ah. jàmm la ñuy woote. jàmm la ñuy li ci xol yi nag moom mi ngi ci xol yi. Hmm. li ci xel yi mi ngi ci xel yi. Hmm. te lu am na yoo xamante ni dindi wu ko ci. kon li ci des mooy lii fi des nii. ñu rafetal ko te dimbali jeunesse bi. dañu mm-hmm. bàyyi ay ay ay fonds comme nan lañ tuddal sax yii nga xamante ni gars yi dañ koy jël di ko jox seen partisans yi. et puis doguma la. Mm-hmm. Euh, dañu am benn spécial plateau samedi incha allah. Mm-hmm. lépp lu ñuy càmbar lu ñuy waxtaanee mooy l' emploi et le chômage des jeunes. monsieur Ndao. xëy nañ fi ay agences yoo xam ni amul benn solo. Mm-hmm. ay ANEJ ay euh, DER bëgg naa sax yow incha allah boo ay association mm-hmm. dañ lay invité samedi au plateau mm-hmm. ñu si xëy ndaw yi incha allah naa ñëw ñu waxtaan ci parce que naa ay jeunes yoo xamante ni tey ñi ngi ñi ngi yëngu ku leen ci jàppale woon ah, rek ñu ngi ah. defar ay four yoo xam ne ah, gaz la te bu ma la wanoon bu may ñëw dël si dinaa la wanaale forme yi nga gis ko incha allah samedi nga xam ne aussi ñu bàyyi ay DER ak ay Macky Sall xam nga waa DER yooyu yooyu yëpp fu ñuy dugal sa xaalis bi ci sa partisan a yi nañ ko jël jox ko. jeunesse bourse familiale yi bourse familiale yi askan bi ko moom lañ ko delloo askan bi. delloo ko askan bi voilà di daal nañ nañ libéré prisonnier politique yi. Mhm. nañ libéré prisonnier politique yi. parce que mhm. bu nit euh, ay nit bu ñuy waxtaan pour jàmm am. Mhm. ci réew. accord hmm. lépp lu ñu d'accordoon ni dinañ ko def pour jàmm jàmm ñëw hmm. nañ ko respecté buñ ko respecté rek jàmm dellu si ci Sénégal ñu ngi gërëm ñëpp ñu ñu doon seetaan fii ci Salam Vision et di leen euh, remercier hmm. xam nga euh, di ñaanal euh, suñu kilifa diine yi Euh, ci li ñu def ci lii fi xew rafet na. trop trop trop leen ñaanal jàmm di leen mm-hmm. ñaanal ñu yàgg fi aussi. Mm-hmm. te di wax ni vive le Sénégal vive le Sénégal vive bi ñoo ko déggandoo mooy monsieur Ndao euh, euh, il fait partie des membres fondateurs n'est-ce pas du mouvement. dëggal suñu bopp nga xam ne Assane Diouf n'est-ce pas moo ko jiite. mooy président bi ñaan yàlla rek ñu libéré mm-hmm. si jàmm ak salaam ay Sénégal lañu muy Assane Diouf. muy Guy Marius Sagna keroog seen tous les prisonniers politiques leen ñaan yàlla ñu gën si dem ak salaam mu doon émission tey kaddu askan à la présentation Cheikhou Sakho jàmm ak jàmm beneen yoon incha allah samedi spécial dossier sur l'emploi et le chômage des jeunes fii Salam